Youssou Ndour vie daa siyaar vie daa siyaar Gueye daa si seen combat bi yàgg na Gueye daa si ñoo ngay xeex ba doomu daana du ci am xeex na nu léegi xeex bu metti eh Youssou Ndour Youssou Ndour Vieux Dacia Youssou Ndour xeex na ak moom eh Youssou Ndour Youssou Ndour dafa mel ne ku ñeme Vieux Dacia ñoo ngay xeex Youssou Ndour Vieux Dacia Youssou Ndour Vieux Dacia yàppan Youssou Ndour ngay fàq Youssou Ndour plaqué na ko Youssou Ndour plaqué daan na ko Youssou Ndour daan na Vieda Sia plaqué na ko mu jaaxaan Youssou Ndour daan na Vieda Sia eh Youssou Ndour lébu gi